après campagne bi bañ a tar ba bu ñu génnee ci élection bi aussi que ñu xam ni peut réew mi la ñu bokk tey war na continuer exister après élection merci Cissé alors euh, avant may ñëw ci sa question en flashback hmm? Le président Idrissa Seck, leader de Déthié Fall à l'époque, avait dit à, au président Macky que sa vision s'arrêtait à Diamniadio. On est d'accord. Un bon d'État. Hmm? il est revenu dire au président Macky Sall que sa vision dépasse Diamniadio ça veut tout dire en flashback pour tënk rek parce que si si duma may ngeen ma wax ni ngeen waxee mu déglu leen avec vraiment patience et voilà. non c'est juste pour c'est juste pour dire que voilà ça ne tient pas ça ne tient pas quoi li nga wax la vision du président s'arrête à Diam il faut être non non non bul dama la déglu. il faut s'offrir et m'écouter. yaa ko wax sànq yaa ko ne il faut novice pour dire que. dañuy jëlee ministère de l' agriculture. non il faut être ambitieux il faut être novice et ignorant. pour dire que dañuy jëlee ministère de l' agriculture jam ñaajo yóbbu ko ci àll bi. c' est ignorer que le ministère peut-être mooy institution bi mais service services déconcentrés ñu ngi ci biir département yi région yi ak communes yi. laajteel fan mooy DRDR fan mooy leen jël ba ministère de l' agriculture jëlee ko jam ñaajo yóbbu ko dans les départements qu'est-ce que ça va changer en terme d' administration ça va rien changer les services déconcentrés du ministère de l' ñu ngi jëriñ les sénégalais des profondeurs man ci laa bokk te xam naa li tax ma wax ko. ba léegi Maroc Maroc moo ñu may soble. je ne réponds pas à vos questions. je ne réponds pas, pas à vos questions. et moo ñu may soble. ba léegi on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. On lui demandait de se taire parce que c'est pas sa présidence. Je vous ai écouté. la courtoisie, Alors euh, pour ñëw ci euh, dama fi dégg sànq ñu ne on ne peut pas être parti man de ndaw la man ci président Macky Sall laa xamee engagement politique à l'université mais defe naa ne bu fekkoon juge et parti moi je considère déjà que. Euh, le fait que ñu ne Sénégal sàcc élection comme ni ko ba peuple bi di waxee dafa mën a am wala segg ay nit sans faux débat à mon avis sans faux débat pourquoi ñun élection yi ñu génn on a perdu les grandes villes du Sénégal le dé le débat sur l'organisation des élections une personne neutre s'était toujours posé le président avait dit non su fekkoon ne ay luubal wala lëñmëj wala loo xamante ne teguwul ci yoon day am on n'allait pas perdre Touba perdre Dakar perdre Thiès et j'en passe ba Ousmane Sonko bi ngeen di defendre tey nekk maire de Ziguinchor kon loolu moom pour man c'est c'est c'est jàll nañ ko nekkatuñ ci débat boobu on est d'accord da nga wax cinq question wu emploi et employabilité des jeunes xam nga bu ñu fi tegoon tey si c'est déglu ma ni mu lay dégloo. nga indi sa teg wax ANSD wax la dama lay renvoyé waat ANSD le maître des chiffres mu wax la président Macky Sall ba mu fi ñëwee ba tey dans sa vision tout n'est pas rose man je souffre du problème de l'emploi et de l'employabilité des jeunes je suis professionnel je suis entrepreneur agricole kon su ma ñëwee sànq di intervenir dans le cadre de du ministère de l'agriculture je parle en connaissance de cause le moi ay haïssable encore moins encore plus je suis gestionnaire de projet donc je suis au cœur du plan Sénégal émergent pour xam programme ak projet wu président Macky Sall ci lan la ko teg lan mooy avancé yi ak fan la bëggoon mu yegg ak fan la yem tey ak lan moo ko war a yeggale et objectivement en tout impact en toute objectivité bu ñuy ñëw le président a mis en trois quatre cent cinquante milliards donc pour la question de l'emploi et de l'employabilité on est d'accord les projets sont là vous avez parlé de l'agriculture Macky Sall a toujours dit Macky Sall a toujours dit l'agriculture est le moteur de développement il l'a dit on a été en Chine foo dem c'est 30 pour cent ou 3 pour cent de la population moo téye de la population mais fan la ñu jóge fan lañ fekk agriculture dañu fekk sama maam bi dëkk Fimela doon béyee uu ak daba ak ak ak ak ak machine boo xam ne loxo la ko doon utiliser PUDC ñëw soulager ko indi ay matériel lu bees moo tax ma ne on ne peut pas sauter de zéro à cent président Macky Sall dafa am ci ay programme fu mu fekk réew mi di ci def étape par étape pour am fu mu ko war a yóbbu ba keroog ñu yegg si si industrialisation bi suñu ko temps bi permettre ñu dugg ci débat de fond ba ba ba ba weesu débat de de forme bi cinq 500 mille emplois pour le premier mandat c'est minime par rapport à la demande mais il faut oser dire les réalisations wala lakki les acquis yi nga xamante ne am nañ ko dans ce cadre là un million d'emplois au second mandat waxatuma la emploi yi nga xamante ne nii ah 500000 enseignants augmentation revenu yi salaire salaire sénégalais bu yokkul wax ma ko le pouvoir d'achat des sénégalais d'accord ay problème conjoncturel dafa am ñun ñëpp dañ koy dund dans le monde je pars en France ma sœur avec qui je vis bu wàccoon ci supermarché bi yóbbu 100 euros elle fait son panier à plat je suis repartie après Covid avec 300 euro et la acheté les mêmes articles. Vous, vous allez ma dire que ça ne se ressent qu'au Sénégal. Peut-être que ñun politique bu ñuy wax dañu naan ñoom ñooy nguuru yëguñu méttitu réew mi non non ñun ñëpp dañ koy yëg. Pour sax parfois il est il est il est bon d'être impartial dans les débats et d'être très objectif bañ di indexer indexer indexer c'est bon d'être opposant parce que nekkoon ngeen au commandes nekkoon nga à l'Assemblée nationale c'est bien de de défendre le programme de votre leader mais il est aussi bon de reconnaître que le président Macky Sall est un visionnaire dafa am fu mu fekk Sénégal 1.5 la croissance bi toll tey nous allons vers une croissance à trois chiffres bu ma fi nekkoon di ko wax di ko wax te boo demee ci ANSD di nga retrouver les mêmes chiffres peut-être yow nga am say chiffres bopp on est d'accord je considère que l'organisation des élections au Sénégal par une personne neutre wala une personne partisane je ne vois même pas la partisanerie dans ça parce que les gens qui gèrent l'administration territoriale ce sont jàng comme ñun qui ont été là peut-être avant le régime du président Macky Sall qui resteront là après le régime du président Macky Sall qui ont toujours organisé des élections libres et transparentes qui ont permis à Diouf de succéder à Wade qui ont permis à Macky de euh, à à à Wade de succéder à Diouf qui ont permis à Macky de succéder à Wade malgré les remous et tout et qui permettront kii ñëw mu succéder au président Macky Sall dans la transparence et dans une dans une dans une dans des élections ouvertes boo xamante ne day c'est une première au Sénégal ñu ne président sortant bi bokk ci yàlla na doon président Amadou Ba pour mu yeggali le la vision du président Macky Sall parce que ñun loolu lañu gëm. merci le Sénégal de 2024 un Sénégal boo xamante ne une nation soudée li indi cassure yi peut-être ñemewu leen ko wax xam ngeen ko il est arrivé un moment dans la vie politique de notre nation. benn parti ak son homme surgir indi fi violence xaajale këri diine yi salfaañi ak ak yelleef yi ak ak xas gor ñu baax ñi tuumal leen ne kenn du la yóbbu ci justice ak ki nga xamante ne nii moom moom ngay dugg ci kër kujje beesul Sénégal PDS PS dañu doon bokk kër ñuy añandoo di reeyandoo je me rappelle sama yaay sama ñoom maam sama ñoom tante xuloo mësul am xeex mësul am Sénégal ngay dugg léegi ci kër ndax politique kii far Pastef kii far fee ñu bëgg rayante te ñu bokk benn deret lan moo ko indi ce discours haineux la le fait de vouloir promouvoir la violence xool duggal ko ci xolu sénégalais yi xolu jeunesse bi en particulier koo gis muy dawal otoom nga ne ko ci nguur gi la bokk dafa sàcc koo gis loolu la ñu dugal te il faut oser le dire benn nit moo ko fi indi ci Sénégal muy Ousmane ko et l'ex-Pastef cependant je suis heureuse et très contente de reconnaître et de voir aujourd'hui que l'ex-Pastef et son groupe d'hommes ñu ngi def obéissance civile et démocratique loolu rek la ñu doon ñaan je n'ai rien contre qui que ce soit ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay ndaw lañ ñoo war a yore réew mi yàlla na Sénégal de 2024 nekk Sénégal boo xam ne les morceaux seront recollés président Macky Sall dox na ci wax na ci jëf na ci moo tax sax mu ne bàyyi naa troisième mandat et en toute légalité mënoon na ko def constitution may ko ko lépp may ko ko c'est un débat ki a été posé durant des années au Sénégal ko boo xamante nii ku jug doo tiit boo xamante nii ku bëgg lekk lekk boo xamante ne ni ku bëgg naan naan ku bëgg faju faju ku bëgg tukki tukki mu nekk Sénégal bi nga xam ne ni ko président waxee avec son plan Sénégal émergent day nekk un Sénégal bu émergent un Sénégal bu fructueux un Sénégal bu attractif. loolu moo doon sama xalaat merci yaay.